asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi fi teew ñëpp di leen ziar ci guddi koor gi di nuyu suñu sëriñ Moustapha bu jigéen ah moom de mënoon nañ fa yamale sax de am na sol waaye ku sañ te bañ saña a nangu dama waroon def rek ni waaj a defoon te sànq rek moo koy moo ko doon nettali. waaye dañ ko jox pour mu wax sawaru ci mu taxaw si kanam dañuy ne leen xam ngeen li bëgg wax ñu ne ko waaw mu ne du fe kon baax na boobu ba déwén <laughs> déwén bu ñëw gars yi ne mu ne leen euh, xam nga li ma bëgg wax ñu ne ko déedéet mu ne du fi xaj ba déwén <laughs> déwén na te mu ñëwati

pourtant thème bi condensé la sax ndax ñetti thème lu bi le prophète sallallahu alayhi wa sallam une espèce à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam une bibliothèque inexplorée bi le prophète sallallahu alayhi wa sallam essence de bonté bon bañ xoolee ni ñetti thèmes yëpp du xaj ci benn programme dañ lañ ko condensé def ko muy benn ah dañ ma choisir loo thème bi xool xool xamuñ kan lañ koy jox xam naa ñu jox ma ko rek waaye ni ma ko waxee ku sañ te bañ sañ nangu xam nga yonent bi ni ma koy kaasee bis bu nekk mënta nekk modèle waaye bésu tey explication jot ma waaye balaa ma ci egsi fook ma lu ma leeral ndax balaa nga xam keneen lan moo tax mu spécial foo nga xam yow fan nga tool ak lan nga lan moo lu composé xam nga doomu aadama am na nit it am na man ci nit laay ñëw xam nga buñ jëlee yàlla li mu bind yëpp li ci intéressant dul yëmu bind ak nan la ñu mel façon bi mu leen organiser la xam ngeen univers bi rek ni mu toll ak mbindeef yi mu yi mu ëmb mais est-ce que xamoon ngeen ni benn cellule nit dana denc lu toll ñaata cellule nekk ci biir nit mbindeef yooyu it danañ am seen équivalent en cellule cellule boobu it am yeneen mbindeef yu sa nekk donc la ñuy toppantee di gën di ndawet univers bi itam mais cellule la ci leneen loolu di dem di gën a ngànd rek et pourtant nit bu matee la moo war a mat mais mooy gérer yëpp ndax position centrale bi moo ko yore moom la ko yàlla dénk

li tax mu mënoon fay ñëw c'est parce que dañ ko créer port bu compatible mu mën a effectuer li muy effectuer waaye système boo ko boppam la boo delloo ci wàllu informatique dafay mel ni tey nga yore sa MacBook nga yore sa MacBook war si ubbi fichier X exe e, e, e, exécutable mais pour cela faut on nga le Windows da ngay le Windows faut on installé xam ngeen ne sëriñ Moustapha jàngal la leen ci gàmm ne bi ruuxul qudus lañ defaree yaramam nga mës naa si tool yi si waxtaan ak tonton Cheikh Sarr nga ñu bëri li ñu xamul mooy bañ defaree yaram boobu ba pare doon def test di xool ba xam àttan na dëgg-dëgg li yonent bi di yore yépp dafa tas dafa tas li tax moom mu gën a spécial c'est parce que benn yaram hamrek, am na waaye ruuxam it mënoo tudd ruuxam rek ba ko noonu xam nga dina jël tissu ñaw ko plusieurs parties ñaw ko non li ñuy jëlé roxam ñaw ko ci yaram ji ce qui fait que li matériel ak li immatériel yooyu yëpp ça linge du ko yëngal parce que fépp lay dugg fépp la mëne beneen bi li ñuy tuddee leer bon yaakaar naa ñëpp xam nañ luy leer waaye li tax ñuy wax leer di wax leeru yonent bi y a une très bonne raison leeru yonent bi kuñ ka te parewoo woon na war a pare doo ko fekkee doo ko fekkee ndax xam nga yàlla ku mu defar nga defaru yonent bi la mu doon xam nga ni ko seen Cheikh tuddee léegi dañ ko defar formation mu ñax ba sonn prouver ni mën na ko àttan ñu jox ko ko waaye xam nga yàlla moom it yenn saa yi di la jox te doo ko yëg dina la jox te doo ko yëg xam nga leeru yenent bi li ñuy tuddee le néant da ko yàlla laxase ce qui fait mën nga taxaw ci kanamam yaakaar ni leer rek la yore waaye bu la fëggee nga yëg fu mu la fëggee nga yëg ndax soxla yonent bi dafa soxla wul sax doole ndax xam nga benn tox ci leer googu mais waxuma la univers bi mais multivers yi ñu wër bu doon tox fii tey dina lakk suñu système d'univers lakk cinq wala six univers yu ko wër loolu yëpp ci benn tox kon xam naa ku doon wër bu doon wër doole it daf ko soxla woon Ben, bi ñu ñëw ci mbaaxu yonent bi xam nga bala ñu yalla di wax wax yonent bi sax bala dara yooyu yëpp di am mo nga wax jëf ju rafet mo nga wax doxalin go rafet waye mbax ci yonent bi lu doogee ñëw mbax du jëf du doxalin jikko la ci moom la doogee ñëw ndax moom rek la yàlla may mu am benn yaatu bi te mbaax pire mbaax bu njëkk ba originel bi ci moom ci foofu rek la mën a xaj moo tax gannaaw moom ku baaxati moo la baaxal bu dee ci wàllu xam-xamam nag boobu sax yaakaar naa mooy gën a simple ndax xam nga dañ ne alxuraan xam-xam yëpp a ci biir

moom nag lii lii moo tax di wax si moom dafay jafe ndax di nga wax ba yow ci sa bopp dootoo xam loo wax li ñuy wax da ngay daanu moom du la daaneel daf daf lay sànni waaye noonu la toll waaw moo tax li ñu waxoon ci ouverture ba yoyon bi est-ce que te ngeen a jàpp si ñamu am rek te roy leen ndax bu dul dara li mu wax sànq moom munul nekk royukaay ndax pourtant lenn rek a tax ñu mën a def sunna ñu mën ko appliquer te dara duñu si fekk te mooy mbaax gi ma tudd sànq mooy mbaax gi ma tudd sànq mbaaxam rek a tax nga def sunna nga mën ko appliquer yàlla jox la si dara ndax sunna moo ko moom moo ko moom moo ko moom moo defoon waaye mbaax boobu moo tax ku ca jaarit mu dugal la ci kon nag kooku ba xam roy ko yomb na kon yaakaar naa jàpp si liñ sëriñ jàngaloon moo gën te mooy ngeen xool ci ña mu am ngeen jàpp ca ñoom xam naa ñu bañ a guddal rek ndax guddi na ba pare yaakaar naa foofu lañu yem ndax ndax Serigne Cheikh indi na li téere yi wax ak li mag ñi wax te yaakaar naa loolu sax doyoon na waaw rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ngi rafetlu kàddu pays, macha allah <coughs> cours magistral moo université cours magistral mon côté, tëj <laughs> macha allah yalla, na yàlla yalla te yàlla bu yaakaar tas yalla na leen sam. sàmm bàyyi le grand professeur muy suñu guide Cheikh el Moustapha oustaz Ngagne Ndiaye daf ne woon dafa amoon ay abiyaat yu mu bëgg a yu mu bëgg a wax daf ñu ko ñaanoon te wax dëgg yàlla am muy nit ku baax ñu may ko ko rek bi ci desit waxoon naa sànq ne laylatul xadr bi ñu ngi ko doon tudd mi ngi ci programme bi waaye kilifa gi moo ñaan ñu bàyyi ko rek ba mu gën a yaatu kon tey moo doon dernier cours bi ni ko sang yi wàccee am na solo Nous naa l'éternel extrême ñun xamuñu woon lu muy <laughs> waaye tabaarakallaahu sang bi ak mbokkam mu tedd mi indil nañ ñu ci ay yu solo fay yiw ñu demander ñu conférencier yi fi jaar ko ci kilifa gi ci boppam te waxoon nañ ko sànq te moom moom lépp Oustaz Babacar Diop di ko sant ci leeral gim ñu leeralal ci tafsir ni ko mutasawifun yi doon defee di sant Oustaz Lamine Diop mi nga xam ne moo ñëwoon ci Seydina Muhammad ci leadership am di sant Oustaz Maodo ja ci brillante communication bi nga été la jeunesse et loisir di professeur Abdou Karim Diaw mom mi nga xamné concept de la pauvreté entre l'islam et institution de développement <clears throat> di sante sunu jarbat soxna Zainabou ak Oustaz de ci panel bu am solo bi ñu defoon ci regard de l'islam sur les nouveaux concepts de promotion de la femme <clears throat> di sant oustaz Malik Mbaye momit ci cours bi mu defoon ci mystique musulmane et psychanalyse convergence et divergence di sant oustaz Cheikh Tidiane Diallo momit ci cours bi mu defoon ci les miracles scientifiques de la sunna di sant oustaz Makhtar Kebé moo ñu defaloon thème bi nga xam ne moo del ci problématique du pouvoir vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di sant docteur Mbaye Thiam ak oustaz Zakaria Cissé mi ñu defaloon panel bi nga xam ne nii moo nekkoon droit islamique et pratique médicale di inspecteur Seydou Xumma moo ñu defaloon thème bi nga xamné mo aju ci le domaine affectif de l'enfant approche pédagogique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di sante docteur professeur Seydou Nourou Diop bi ñu défalon thème alimentation et santé publique les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di sante kade yi ci sen prestation bu rafet ci sen journée bi ak ñi nga xamné ñoleen jité di sante oustaz Ndiasse Ndione moom ci thème bi nga xamné ni mom la defoon dembu ci cohabitation religieuse dans la cité état de Médine di sante suñu sangé yi nga xamné ni ñom ñoo tok ci table ji yalla yalla barkel su ko eh, ñi ngi doon wax ne amna marche def traditionnellement entre le comité scientifique ak euh, wa commission universitaire scolaire ah marche capitaine yaa ngi tok toog dañ ko jàpp pour euh, euh, pour demain demain incha allah lañ koy fas yéene def ñu ngi koy defee Magicland non terrain Magicland lañ koy defee à partir de 20h30. xam naa ku yaatu rek boo fa mënee agsi supporter le comité scientifique ak irshad ñu jàkkaarloog étudiants yi. dana baax incha allah su ko defee <laughs> su ko defee xam naa kon loolu moo doon kàddu yi dañuy bàyyee rek fam loo ciy teg waaw dañuy bàyyee rek suñu mama Kiné incha allah mu defal ñu ñaan ñu yeew ah, ah maa ngi jéggalu oustaz ñu bàyyi oustaz Ngagne Ndiaye mu wax abiyaat yi mu bëgg a wax ba pare su ko defee ñu jox soxna Kiné mu mu tëj incha allah oustaz bismillah السلام عليكم بكي ني كليفي ييب فا تبارك الله جيتال تي نك سخنا فاطمه الكبرى دي سخنا ماما كينسي يالنا يالا ياغال سي ديمبا يالنا يالا موت ليلا دي نوي سانغ يي مام شيخنا تيجانسي اك مام شيخنا تيجانسي مام سيدي ابو بكر نينكو بوكال si nag ñu ngi ñu ngi jéggulu kàddu gi ñu bëgg a yëkkati yàlla xam ne dañ doon bind not bind na not ba pare ba di ko bëgg a jot si Ahmed Tijani ne ko nañ ko bàyyi te addu ban maa xasil xadra yàlla bi yàlla xam ne not bi bind naa ko pare munu ma nii xamatu bu damay def waaye maa ngi jéggulu ndax laa tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabi am ay béy rek yu nu tënkoon tey ci suba ñu woon daan ko ndokkeele jotaay bi waaye séenu wu ñu woon ne sang yi ñooy ñëw wax dëgg yàlla waaye comme ñëw nañu tam nu joxe ko rek gàttal ko wax arab bi duñ jox benn wolof dañ koy tënk rek ñu yëkkati jotaay bi ci jaamia bi ñu wax ne akrim bi jaamiatin xaazat maziyaati jaza munazimaha rabbul bariyaati ani bihi qudwata al ahbaabi murshidana أدى رسالته في كل حالات جامعة جمعت أسمى المعارف من شتى العلوم وفي كل المجالات جامعة جمعت جل العباقر من بين الطوائف جمعا دون غفلات فلا ترى أبدا محصي منافعها لملا ونازمها محد السماحات بانت فوائدها صفت منابعها عمت قوامدها سائر الجماعات على منابرها حلت مشاكلنا أدام تنظيمها رب القلقات نظمتموها بأفكار معمقة حصتم مفاخرة بل فزتم بخيرات زينتموها بأعمال منسقة أتقنتم أمرها نلتم سعاداتي في كل قطر من الأقطار مجلسها نلنا بتنظيمها كل الفضيلات إن الدروس التي جئتم بها علنا حقا يقدرها أولو البصيرات الحمد لله في بدء وفي ختم نرجو من الله توفيقا فتوحات يا رب صل على محمود سيدنا wa alihi sahbihi naalul bisharati wasalaamu euh, <coughs> ñu ñu ñu baal ñu rek dañu faté won ci cant yi dañu yone note bi euh, presse bi surtout waa TFM ñu ne ñu ngi leen di sant ci euh, vraiment <coughs> rediffusion yi euh, rediffusion yi nga xamné ni mom lañuy def di sant Asfiyahi di sant TV di sant AZ Actunet euh, Tamar ak ñi nga xamne nak ñoko momal sen bop muy TV ndax ñom dañuy def direct ba pare rediffuser di sant aussi Mourchid FM 87.6 tu 6 Tivaouane ñoom ñi ngi def diffusion rediffusion wala diffusion sax laa ko mën a tuddee live en direct ci li nga xam ne ni moom mooy conférence yi comme ni ko Mourchid TV di defee kon nag loolu moo doon liñ doon mottali ci cant yi ñu bàyyi rek soxna si mu joxe ñaan mottali kàddu yi tëj incha allah asalaamaaleykum wax rahmatullah jaajëfal di ñaan yàlla te di ko sant ci lim ñu may ñu commencé kóor ci bismillahi rahmaani rahim eggali ko alhamdulilahi rabbil alamin lépp di jàngat ci biir ak ci biti man loolu daanaka mooy sama wéttal ci at bi ndax sama génn barewul sama toog ak nit ñi it barewul loolu dama yàlla na toog kenn ci dara léeg-léeg daal doom yooyu jiki jékki rek ñëw wéttali ma ñu waxtaan xuus tuuti li ma leen di faral di wax ne leen yaay dina jàngal doom wax ne doom yi dina jàngal yaay te lu am solo la ah yàlla mi ñu ko defal si gannaaw sëriñ Moustapha Sy yàlla ñu ko yàlla yàgg a defal ñu yàgg a dara fekkee te bu ñëw dàq moromam te incha rabbil izzati mooy am na bu soobee yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke sëriñ Babacar si incha allah moo tax yi ñaan yàlla rek yal yàlla yokk leeru dënn gën a barkeel xam-xam yi fay ñu kilifa bi sëriñ Mouhamadou Moustapha si hafizahu llahu yàlla yàgg ko saxaat ci kanam njaboot gi mooy xam njabootu pas-pas yi la moo xam njabootu deret yi la ah te euh, may ko ndam ci lépp defal ko lu sut njottam barkeelal ko structure yëpp yi am ak yi war a dikk incha allah te doon ci garanti sëram yàgg nga saxaar ci kanamu njaboot bi mu yàgg leen tette jiite leen weñ sew te bañ a dam yaakaaram ak yéene mébé ci suñu njaboot yi yal ko ci yàlla defal ko sut njottam yàlla tettal leen boppam zahiru baatin doon seen garant seen protecteur seen guide spirituel te kenn man ci mën dara lépp lu fi nekkoon ci biir cadre daayir bi yal na ko ko yàlla sàmmal dox diggante mag ñépp ñi di yàqkat moo xam góor la di jigéen di mag di ndaw di ñi di jinn di shayatin di rawaan bu yàqee yàlla mën na ko ci barke kilifa yu baax yi te yéen ñooy may jiite ci yonent bi sallallahu wa sallam te mu ànd ak juboo xel ak juboo xol suñu biir yal nañu ko yàlla defal kenn bañ ci mën dara zahir wa batina di dellu di ko gërëm rek di ko sant ndax dañ ci am yëpp da yëpp c'est grâce à wax dëgg yàlla ndax it dama ko xam dama xam ne yéeneem la ci njaboot gi lu may yëkk la ne yéeneem ne ci njaboot gi kon nag moom yàlla na ko ko yàlla mottali mottali yéeneem yaakaaram ak yéeneem mébétam ci njaboot gi te mottali yaakaar ak yéene mébétu njaboot gi ci moom te lépp ñu tal ko fekkee ko bokk ko ko képp ku ñu ko yéene ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Al te lépp di yiwu biir ak biti yépp di leeru biir ak biti yal nañu ko yàlla defal wéral cëri wéral baati te yàlla yokk xam-xam bi du rëy lu neex du rëy comme on yàlla may ñu ñëpp ñu fekk ko déwén ak jàmm ak salaam te bu déwénee mu dàq téeméeri fukki ji yoon bu ren ren bi neex na loolu waa ne chaque rek incha allah yal yàlla gën a yokk rek ah gën a rafetal yëpp gën a barki lépp lépp di ndamu biir ak biti incha allah ñu bokk ko ku ñu ko yéene. ko ñu ko yéene woon nag xaw ma ca dara <laughs> léegi ñu def fatiha ak salaatul fatiha def kàddu yi yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ñaan yàlla may ñu ñu fekkee ko jàmm ak salaam ah te lépp doon toujours ndamu kilifa gi ah te ñu ñu tal ko fekki ko bokk ko moom incha allah dëgg incha allah ñu tëj jotaay bi man de doyuma bu ñu neexoon sax ñu continuer ba diwén. ndax man dama ci jàng <laughs> dama ciy jàngale bu baax wax dëgg yàlla te it wéttal la wéttal la wax dëgg yàlla walla damay wax toujours bu may xool foto ma am ne aw ma sa fay ñoom mi ma booleeg Serigne Moustapha sa njaboot waa yàlla am na sa ci barke yonent mënuma ko fay waa ne yàlla am na fayam ci sa barke yow te lépp ñu tal ko fekkee ko ba mu moom incha allah ndax xeeru baatin te wéru cër yi incha allah yal na ñu ko yàlla fayal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh al Khalifa radiyallahu lépp ñu tal ko fekkee ko bokk ko moom incha allah bi laay set ñu def ñaan suñu sang yi nag moom dama leen di bàyyi seen borom xam na xam na man xam naa yal na yàlla mott bi lépp ñu bokkoo ko ñoom te yàlla la fa leen cat incha allah gën leen jubale yàlla laay bàyyi mu doon seen gaaraan moom parce ku mu nekk sa gaaraan kenn du ci mën dara incha allah yal na leen yàlla taxaw te aar leen sàmm leen yàlla taxawu leen aar leen leen bu leen xeeb mukk seen ñaan sama ñaan ci yéen parce que moom xam na sama xol sama yéene ci yéen ak ci seen pap moom laa koy seedeel te yàlla kenn mënu ko seedeel ci lu dul dëgg seen maam xalifa yit xam na moom mi ma booleeg yéen xam na moo tax damay bàyyi yëpp ci seen loxo rek man lépp dama ko jël taxañ ko rek teg ci loxo maam ne ko yaay sama garantie sa yaay sama yaay sama intercesseur ci yàlla yàlla doon sama garantie samay yaakaar ak yéene ak mbébé ci njaboot gi yëpp man mënuma leen fay mais yàlla mi mën a fay yàlla nee na leen yàlla fay wétt li ngeen ma yàlla na leen yàlla wétt ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Babacar Sy te yàlla wàcc ko ba ci seen njaboot matar ko fekkee ko saa incha allah bi izzati yàlla baax na amin incha allah bu soobee yàlla te li ngeen di def baax na yal na leen yàlla tafal dialogue rek dialogue rek fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mais dialogue rek su ngeen defee dialogue continue di déggoo seen biir di def ay concession yàlla mën na def suturu bu parce que xam naa ni ma leen di wax te seen maama tax dafa am lu tax mu di leen ko wax kenn baaxul lépp nga wax ko mais rek bu ngeen di def dialogue continue ngeen di déggoonte di def concession ku ko mën a defee jàmbur mun ko defal sa mbokku taalibe ngeen yaatal bu mu demee ba ci kanam ngeen di xam ne ma leen di wax parce que yàlla nag saatu la kenn du ko jiitu ci mbaram nañ ñaan rek nañ ñaan ñaanu xol nañ ñaan ñaanu kurus mm-hmm. incha allah benn te yàlla may ñu ñun ñu tal fekkee mm-hmm. incha allah ay jëm that's Sebastian Patrick.